mbokk yi tey ñu taxaw ak ki nga xamante ni mooy njiital Leewtoo production muy Pape Thialis Pape Thialis bëggoon nañu xam tey lan moo la indi arène nationale. waaw d'abord ñu ngi lay nuyu donc di nuyu sénégalais yi di nuyu amateurs yi di la nuyu di nuyu aussi ñi nga techniciens yi nga àndal. di nuyu CNTG. donc suñu présence à arène nationale lu ko waral mooy ñëw régulariser combat Tapha Tine booy Niang. donc moo taxaw ñu ñëw fi tey pour régulariser ko. te macha allah def nañ ko waa CNG jàpp leen si ñu si war a jàpp jàpp leen si si régulariser nañ combat Tafatim booy Niang maintenant si officiel ñu ngi jàpp datu le 8 août incha allah fii si arène nationale bi. le 8 août dafa mel ni am na promoteur bi ko moomoon jox la ko. ci yan condition ngeen déggoo ba mu jël date bi jox la. waaw condition amu si parce que si baaxaayam rek lañu ko jox. parce que ñu ñëpp ñoo bokk nekk si làmb ji. donc bu ñu man am na acte yu ma def yoo xam ne def naa ko ci làmb ji te gratuitement laa ko def. moom aussi mu sentir ko def ko gratuitement amul benn condition boo xam ne def nañ ko si waxtaan waxtaan woo nañ ko wax ko. mu nangu ko ñoo fekk suñu jox ñu ko si xol bi seddu guy mais amul benn condition boo xam ne teg na ko pour pour ñu jël la pour ñu jël ko. donc loolu aussi ñu ko siy gërëm parce que mooy wane ni moom làmb ko tax moo ko ñor moo ko tax jóg. donc am na esprit de dépassement am na esprit de grandeur moom mu mën a jël datam bi nga xam ne jàpp na ko parce que bokk na si ñi nga xam ne dañuy impacté woon si Covid bi. donc mu jël datam boobu jox ñu ko ñu ñi nga xam ne ràññ ràññ la ñu bëgg a tëgg donc loolu mooy wane ni vraiment euh, nit ku nit ku nit nit ku ñu war a gërëm la te ñu ngi koy gërëm incha allah te dinañ te fépp fu ñu dem dinañ wax ni moom gërëm nañ ko. ñu bëri ci nitu làmb yi koo ci laaj danaa la Leewtoo production ñoo tëgg affiche bu mag bi nga xamante ni combat jànq la mu dox ci diggante booy Niang ak tafaatin Tine euh, boobu ci wàccaay bi ak promotion combat yi nan nga koy fas yéene waajee parce que du c'était la première fois Leewtoo di organiser ay bis yu mag. waaw am nañ habitude di organiser bés yu mag. Mm-hmm. mais je pense que bii moom mooy nekk bu mooy raw si ma wàllu organisation si wàllu promotion incha allah dinañ si def. lu lu lu lu mucc ayib dinañ si ànd ak aussi ay nit ñoo xam ne am nañ expérience bi te derrière ñu ngi ñuy jàppale pour que ñu réussir bés boobu incha allah daal ñoo doon rendez waa amateurs yi ak waa Sénégal le 8 août incha allah dinañ gis innovation. Hmm. prochain daje Tafatine Boy Niang kañ lay doon. waaw Tafatine Boy Niang war nañ daje benn face à face boo xam ne ñu ngi ko fas yéene def si arène nationale bi. Hmm. waaw face à face bu mag boo xam ne arène nationale lañ ko bëgg a def incha allah donc may euh, jàpp ko arène nationale incha allah. face à bi day am entrée. wala face bi day am entrée mais day nekk loo xam ne ça sera. Euh, entrée boo xam ne ñëpp dinañ dina mën a oyof pour ñëpp ñëw. Mm. waaw loo xam ne nii du dara c'est pour juste rek. pour sécurité gën a mën a am moo tax parce que bu fekkee dafoo loolu rek day mujj ëpp loxo. Mm. te comme Boy Niang Pikine la dëkk kële aussi bawal ñëpp ngi si gannaawam. Boy Niang Pikine ñëpp nekk si gannaawam mënoo def face à face bu mel noonu ci combat boobu. Mm. ba pare te dafoo ay mesures d'accompagnement yoo xam ne dina tax nit ñi ñëw seraan ko si jàmm ñibbi si jàmm ak salaam incha allah. Mm. combat boobu nekk grand combat bi dox ci diggante booy Niang ak Tapha Tine da nga ciy yeneen combat yu yu neex yu mag wala da ngay da ngay combat boobu. Ah, ñun askan bi la ñuy la ñuy li ñuy def pour askan bi la ñuy def pour amateur yi donc forcément dinam yeneen combat yu ndaw yu nekk ci yu ànd ak affiche boobu. Mm. pour pour jëmmal bés bi. Mm. donc na nekk am aussi combat yu mag yu neex. même bu nekkee ay ay espoir yu bëre mais dina nekk combat yoo xam ne ni dina neex incha allah. jërëjëf maa ngi lay jaajëfal ñu ngi lay jaajëfal aussi merci. jërëjëf.